محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمع mbokki daara yi xam-xam ñu ngi leen nuyu di leen ziara di del siwaat ak yéen ci kàttanu borom bi tabaaraka wa taala di leen ziara di leen ñaanal di ñaanal mboolem ku nekk ci daara ji di jégalu ñëpp nag del siwaat ak ak yéen ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di àndaat ak yéen ci bind yu ñuy faral di nafarante ak yéen ci ci daara ji muy uh, muy ay ay ay duruus ci ilmul ñuy sukkandiku ci téere bi di maraqi saoud li mubtaqi raqi wa shuud li sidi abdallah wuld ibrahim al alawi ashinqiti rahmatullah alayhi ba léegi nag ñu ngi ci muqaddimatul fànn muqaddima téere bi xaw naa gudd ëpp na téeméeri bayit nangam dafa am muqaddimatul kitaab ñu ngi ci muqaddimatul fànn lii ñuy jàng duggagul ci abwaab yi ci téere waaye yi muqaddima muqaddima la min muqaddimatul fànn soreetul léegi mu jeex nag mu dugg ci abwaab yi euh, fii euh, léegi nag ñi ngi tàmbali sëriñ bi day waxee wal amru qabla al waqti qad taallaqa bil fiili lil ihlaami qad taxaqaqa wa baxdu lil ilzaami yastamirru ala talabusi wa xawmin farru euh, ginnaaw ba nga xamee ni mboolem awaamir mboolem ndigal yi nga xam ni sharia da koo da koo teg nit ak ak mboolem axsaamu taklif yi yi nga xam ni sharia da ko taklif nit loolu inda jumhuril ulama loolu ci jëf rek lay lay maanaam suñ borom jàngoon nga ci ginnaaw wala yukallafu bi xayril fi'li mboolem lu ñu taklif ak digal ñu ko ci ndigal lu ñuy jëf rek la ñu digal moom la ñu taklif tamit moom na nga ko jàngoon ci ginnaaw wala yukallafu bi xayril fi'li ba'athul anbiya wa rabul fadli noonu la ko téye sëñ bi waxee woon ci ginnaaw gannaaw ba nga xamee ni kon nag taklif ci yooyu rek la aju xaaju taklif li muy bëri yëpp ci yooyu dong la aju ci jëf léegi nag kon borom bi tabaaraka wa taala bu la sante jëf te jëf ji daa am waxtu waaye waxtu woo jotagul lu mu jublu ci loolu bu la jëf sant la jëf ji waxtu wi ko war a def jotagul léegi wax wax sant wax googu mu la koy wax te jox ko loolu lu ci jublu loolu ngay jàng lum ci jublu loo ciy jariñoo yow ak gannaaw bu waxtu wa duggee ban àtte nga koy jox ndax jëf joo jëf joo sañ a jiital la laataa waxtu wa ndax boo ko jiitalee laataa waxtu wa dana doy wala du doy léegi ndax am na ci jëf yoo xam ne sañees na koo jiital laataa waxtu wa am na yoo xam ne sañeesu koo jiital yaa laataa waxtu wa am na yoo xam ni dafa nekk ci diggante bi dars bii ngay jàng tey loolu nga ciy jàng moo tax mu ne wal amru ndigal xablal waxti la njëkk wax la njëkk waxtu wax buñ la digalee te te waxtu wa jotagul xamal ne ndigal loolu xat taallaxaa dafa aju bil fi'li ci jëf ji waaw lil i'laami ngir yëg ngir xamal la ko rek ngir ngir yëgal la ko xat taxaqaqa goo xam ne dëggu na maanaam bu la suñu borom dugalee digal te waxtu wa jotagul xamal ni ndigal loolu mi ngi ci jublu ni la da lay xamal ni rek yow mii def bu waxtu sàngam jotee war ngaa def nangam loolu mooy bay di wala amru ndigal xam la wax rek njëkk njëkk waxtu wa xatta xaqaqa xatta àllaxaa dafa aju bil fi ali si jëf lil alaami ñeel xam le xatta xaqaqa goo xam ne dëggu na kon buñ la digalee mbir te waxtu wa na ko war def léegi laata waxtu wa jublu de suñ borom bin la bin la la aqimi sola taxawalal julli digal ne ko waaye waxulal da nga koy taxawal léegi da julli jotagul tàkkusaan jotagul suñ borom ñu la aqimi sola dalay moom bu tàkkusaan jotee rek war na la moo tax mu ni la xat àllaxaa digal googu dafa aju bil fi'li lil i'lam i'lam moo ko tax a jug wa maana al i'lam mooy lan i'tiqaadu wujubi ijaadil fi'li al waajib maanaam i'lam googu yow da war a fas ni man de bu tàkkusaan jotee moom war na maa julli tàkkusaan faw bu la waxee joxeel asaka kasaalika naka noonu la aj màkka bu la ko waxe waxuñu la da ngay dem aj màkka dala aju assuril maalumaat waxuñu la ko nga aj ko te waxtu aj waaye mi gannaaw mën nga ko bu aj jotee da war a aji nii rek la ba lépp jeex kon eh, yëgal googu la ko jógal lil ilaam la loolu lañ ci jublu ilaam googu lañ ci feeg waxtu duggagul xamal ne ci ilaam nga nekk nga fas ni yow bu jotee war koo def waaye bu waxtu duggee nag léegi la lay dëgg wax mu ni wa baadu ginnaaw boo xam ni waxtu wa dëgg nag yastamiru day jóge ci yastamiru day day maanaam day nekk ci istimra maanaam day sax lil ilzam ñeel ak war wa baadu ginnaaw way goor wala boog dana dana dana doon lu sax di war baadu ginnaaw boo waxtu woo duggee lil ilzam ñeel ak ñeel war ala talabbusi waxtu wa ngay làmboo jaamu yàlla waxaw mu ñenn ci boroom xam-xam nag farru daw nañ maanaam yaani farru d'accorduñ ci loolu daw nañ ni wax dee demewul noonu loolu mooy lan xam nga dañu la xam nga bu ñu la ko digalee te waxtu woo jógul lil i'laam la ngir xamal ne bu jotee war nga koo def mun la ginnaaw boo waxtu woo duggee nag isa daxala waxdahu ta kon léegi yëgal gi xamal ne taalluqul ilzaam lay doon maanaam léegi dañ naan la léegi gannaaw waxtu woo dëgg nag ñu yëgal la ko nag loolu day tekk ni moom da nga ko war a def léegi léegi léegi léegi war gi moom taxaw na ginnaaw waxtu wa dugg na moo tax mu ne wa baax na ginnaaw ba nag yastamir lil ilzam làmboo jaamu yàlla ga waxtu woo am na ñoo xam ne ni waxtu bi ngay nekk di julli gi waxtu gi ngay nekk ci bu julli ci misaal wala leen damaa misaal julli rek waxtu googu waaw jaamu yàlla gi mi ngi lay war ba léegi am ñu ni déedéet gannaaw waxtu wi dugg ne la dugg na boobu jaamu yàlla gi war na la léegi nag boo jugee jublu ci commencé ko def léegi kon kenn dootu la wax mbir mi war na la ndax yow te bu nee war na la te yaa ngi ci loolu taasiru asil la mooy amal lu am loolu fo la ñu moo tax mu ni wa baxdu e, lil ilzam yastamiru mu ne ala tarabbusi waxtu wa ngay làmboo jaamu yàlla ga ginnaaw leen ñi la jugal julli te waxtu yu jot na ñu wax la ko kon léegi war na la nga jóg jublu ca yaa ngi ci julli julli gi fareegul ñu ne ah gannaaw ñu ne gannaaw boo xasee tàbb ci julli gi rek moom léegi kenn dootul wax julli gi war na la buñ nee la julli gi war na la loolu loolu tax si lu ansin la ndax yaa ngi si julli gi am ñu ne déedéet moo tax mu ne wax xaw mun farru dafa am ci borom xam yi ñoo xam ni ñoo wax ni julli gi moom boo ci xasee rek waaw waaw boo ci xasee rek wàcc na la léegi moo ñooñu mooy alimaamul Ghazali alimaamul Aramayni rahmatullahi alayhi walmuxtasila wa si la ulama almuxtasila rahmatullahi alayhim ajmain ñoom nee nañ jaamu yàlla gi moom buñ la ko santee te wax luy dugg ju war na la boo ci xasee suubu rek léegi kenn dootul wax war na la ñoom ñoo wax loolu waaye loolu doonul li dëgër li dëgër daal mooy jaamu yàlla gi moom war na la boo ci suubu war na la fii ak fii ak yàlla gi jeexul du la ndax la cay juddoo moo tax dinañ ñëw ci kanam kon seen mazhab bi dañ lañ koy delloo ndax kenn du wax ni ndax jaamu yàlla ay ajza la maanaam bu fekkee julli la ñeenti rakka moo la war a jul war tàkkusaan fii ak ñeenti rakka yi mutul wàccu la léegi boo julee ñaari rakka dagg ko dem julli gi julli gi lépp yàqu na ay ajza la boo commencé julli gi julli ñaari dagg julli ga dem yoonam julli gi yëpp yàqu kon bu dee julli la ci misaal wala weeru koor daal noonu la wala bu dee geneen jaamu yàlla gu mën a doon rek ala talabbusi waxtu wa ngay làmboo mbir mi ma ngay continuer di la war waxaw mun farru ñeneen ñi ni déedéet waratu la waaw loolu tamit المؤرخ يعني أن خوما من الأسوريين وهم إمام العرمين والغزالي والمحتسلة فروا من استمرار الالتسام يوم يوم الالتسام دم ورثوا له بعد المباشرة جنا وبنا كم عسي وكان دوس نيو خني من الوربا وزعموا أنه ينقطع بالاستبداء مباشرة يوم ده يوم جرتني زعيم أبو كعراب وهم يوم جرت لي دغرو زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ما قد عمل القرآن زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا يفرني دجون جوت من جت قل بلى وربي لا لتبحثن ثم لا النبي بما عملت وذلك على الله يسير كون زعم وقع رب خير ما وخت يو خم ني انا نيوي لا وخت دغرو مو نخ وزعموا انهم ينقطعوا بالاستبداء المباشر خوفا تحصيل العاصل واي سن مذهب بوب دنج كوي ديلو نخ وخ مو وخ دغ يالا دغرو rahmatu laahi alayhi imaamul alamin moo ko wax ak Xasaali ak Mu'tasila yi waaye seen wax boobu moom dëgërul jaamu yàlla gàll fii ak génnoo ci mi ngi wéy gi la war ba ni muy jeexee ndax boo ko daggoon lépp da yàqu kon fa la sa yujziu man lahu yuqaddamu wala alayhi duna adrin yu'lamu wa za ta'abbudi wa ma ta'ammada lil fi'li fa taqdimu fihi murtada léegi bi nga xamee ne nag taklif ba nga xamee taklif du aju ci jëf te waxtu wa jotagul waaye innama yata'allaqu ala sabili ihlam faqat maanaam gannaaw waxtu wa jotul moom eh, ala sabili i'rab la nekk ihlam la nekk dañ la koy yëgal rek kon léegi kon kay léegi lañ cee toj mooy kon jaam kon kon jëpp jëf juñ la taklif mënoo koo def te waxtu wa jotul kon mënoo ko jiital te waxtu wa jotul te boo ko jiitalee du baax moom lay jàngal ci bayt bi mu ni kon fa gannaaw wax na la loolu gannaaw baa xamee ne taklif moom boo waxtoo jotagul du aju ci du aju ci jëf waaye ci en rek lay aju amru ga mun kon fa lay say yu gisi udu doy moom jaamu yàlla ga jaamu yàlla man goo xam ne yuqaddi mu def la jiital la xoo de wala yuqaddi mu te deefu ko deefu ko deefu ko andi alayhi ci moom doona asiri ci lu dul tere mu ni jaamu yàlla gannaaw yow buñ la ko eh, buñ la ko waxee te wax jooju la dañ la ko yëg rek waaye waxuñu la dugal def ko kon kay sa ñëw jóg dem jëfi ko te waxtu duggagul te boo moo tax mu ne fa fala sa yu du doy maanaam du kenn du wax na jaamu yàlla gi doo ko defaat kon boo ko defee boo jullee te waxtu jotul da ngay julliwaat mooy fala yu si du doy man la hu yu qaddam képp ku ko jiital doy wala wala wala wala alayhi doon adina yu alim kon jaamu yàlla boo wooroon te weeru ramadan jotul bu ramadan jotee da ngay wooraat ndax alxuraan neen la ramadan war na la waaye nag waxtu woon la ko sant ak weeru ramadan ca nga war a weer woor boo ko defee te jotul bu ramadan jotee da ngay wooraat julli noonu bépp jàmm yàlla nu mu noonu la demee léegi nag liñ ci seetee dinañ ñëw ci kaw kon moo mu ne lu doy boo ko defee ndax jaamu yàlla gum mën a doon balaa mu lay jariñ rek ni ko suñ borom tabaraka wa taala digale nan nga koy def waaye boo ko defee ni la ko yàlla defalul doo am baraatu zimma maanaam ba léegi jaamu yàlla gaa ngi tege ci kaw koor moo tax mu ne fa lay sa yusaru day man lahu yuqaddamu képp koo xam da ngaa jiital ak jaamu yàlla te waxtu ko jotul wala yuqaddamu alay defu ko andi doon na ansilim ci lu dul tere ndax boo ko andi dañ la koy tere ndax boo ko defee ni ko yàlla defewul boo ko ni ko yàlla ni la ko yàlla waxewul yaa fend sa jaamu yàlla ak bopp allahu adina lakum am ala allahi taftarun loolu alxuraan la yéen yàllaa leen digal wala boog da ngeen di créer seen jaamu yàlla bopp di ko def kon kon wala yajuuzu l iqdaamu ala al ibada illa ala wajhi shar'i maanaam jaamu yàlla sañoo koo jiital sañoo koo def nu dul na la ko sharia sante léegi nag mu ni wasa jaamu yàlla gii ma ci jublu gi ma wax nag mooy at taabudi li ñuy wax ibadatu taabudi dinañ ko leeral mooy lan nee na jaamu yàlla gi ma tax di wax nag mooy li ñuy wax ibadatu taabudi mooy lan mooy jaamu yàlla goo xam ne yàlla sant na la ko Euh, mu doon moo xam ni lépp nga xam ni lépp taabudi la loolu mooy la buñ ko waxee mooy jaamu yàlla gu mel ne julli wala woor maanaam la yàlla jubli ci mbir mi dëgg dëgg dëgg yow xayru maxqul maanaam xel mënu caa aju mënoo wax ni lu tax suñ borom ni ma léegi bu lekk bu lekk ba ci gi te bu guddee nga lekk julli anam gi nga koy defee lu tax suñu borom sante ko nga defee ko anam gu anam gu mel noonu yow loolu loolu ibadatu taabudi la mënu am maanaam xel ajuwu ca xayru maxqul bi moo tax mu ni gépp jaamu yàlla goo xam ne ibadatu taabudi la waaw lu mel ne julli wala woor daganul nga jiital ko sa waxtu woo jotagul mooy moo tax mu ni mu ni ba mu waxee loolu mu ni wasa jaamu yàlla gii nag maa ngi ci jublu at taambudi goo xam ne ibaadatu taambudi joxal naa ci lu mel ne julli ak woor lu yooyu kese def na yeneen waaye jaamu yàlla goo xam daal doo ko mën a xool rek mën koo décortiquer ni lii moo tax lii mooy lii moo tax yàlla sant ma ko ñii maanaam xel nga xam ne xel du ci aju xel doogu mënu koo ajo décortiquer ko ni lii tax moo tax mu ne nag mu ñëw ci léegi ndax moo tax dafa am jaamu yàlla goo xam ne maqul la am goo xam ne xayru maqul la moo tax mu ne wama wama jaamu yàlla goo xam ne ta am maba daa sell lil fexale ñeel jëf jaamu yàlla googu def fa taqadimu mu jiital ko murtada lañ gërëm la fii ci moom léegi nag jaamu yàlla goo xam ni maful mafuliya la dañuy wax al mafuliya di wax al mahquliya boo ci wax rek baax na jaamu yàlla goo xam ni mahquliya la mooy xel la caa aju mu ni jaamu yàlla googu de moom mënees na ko giiral maanaam xel da ca aju mooy bu nee naa jaamu yàlla giire da nga xam li tax da nga mën ne ah lii de li tax yàlla xam nañu ko mooy nangam moo tax nangam moo tax bokkul julli wala war wala nangam nga xam ni da ngay ndax yow bu nee laa julli ñaari rakka doo xam lu tax ñu wax la ñaar rakka foofu lu tax ñu wax la ñeenti rakka xamoo ko lu tax ñun la sëggal si su jootal loolu looy xamoo ko kon la bàyyil guddi bàyyil lekk bëccëg guddi ci loolu del lekk bu lekk fajar na del lekk nangam loolu ba léegi ajuwul ci yow xamoo ko léegi jaamu yàlla goo xam ne nag mafuul maanaam maxuul yàlla yaani loolu bu la nga koo jiital am na jaamu yàlla ku mel ne asaka xam nga lu mel ne asaka am na ci mazhab yoo xam ni dagan nañu ñu jiital asaka te maanaam asaka yi am na ñoo xam sax dagan na atum lëmm nga asaka nga jiital ko toll at loolu ñëw na ci xadisu abbas abbas nga ji yoon si sallam jël na asaka yi atam yoo xam ne jiital na ko at imam ngiri ngiri mel ne Abu Hanifa nangu nañ ko mazhab Malik nag nangu na jiital asaka waaye du bari lu mel ne weer wala loolu du ko ëpp diggante bu gàtt waaye ala kulli xaal nangu nañ ko lu tax mooy asaka jaamu yàlla gi mën nañoo wax ni ci genn wet maxquuli yàlla genn wel gi tamit xayru maxquuli yàlla maanaam jaamu genn ya genn wet gi taabud yi la waaye geneen wet gi maxquuli yàlla loolu mooy lan asaka buñ ne laa joxeel asaka jëlal ci alal jox ñu ñàkk loolu da ngay da ngay xam ni sariya bokk na ci jubluwaay yi maanaam fajal ñàkk ñi nga xam dañoo ñàkk loolu moom leer na waaye nag som bi mu lay wax génne ko ci sa mu toll nii loolu xëy na xool bi ma xel aju ca ci misaal mu ne la boo amee téeméeri giléem ak nangam ñaar fukk ak nangam téeméeri xar ak ñaar fukk ak nangam laa bëgg a wax la ngay génne ci asaka boo amee ñeent fukk xar moom ngay génne ci misaal xam nga loolu xel xel nu mu ca mën a ajoo ak ni mu lay génne génneloo ci wàllu pepp ci wàllu nangam pepp maanaam ci wàllu pepp yi mu wax la yii la ci génn yi am yoo xam mu la loo ci génn loola xayru maqul bi kon gis nga ne asaka kon ñaari mbir yi la cee aju waaye gannaaw rek ñaar jaxasoog ñaari mbir yi am na ci ñun lekkoon bu la nee xam man dagan na nga jiital ko waaw nga jiital ko waaye yeneen jaamu yàlla yi nga xam nag te but yi la moom sañoo koo jiital asaka nag dafa doon goo xam ni ci wet te ambut yi la maanaam shaibatul min at ta'abbudi wa shaibatul maf'uliyya ci gàttal kon eh, kon moo tax mu ni wamaa jaam jaamu yàlla goo xam ta ma habda daa sell li fi'li la ñeel jëf waaw fa tax di mu jiital ko murtada lañ jëlam la lu mel ne azaka lu mel ne fay bor xam nga fay bor ci misaal jaamu yàlla la fay bor jaamu yàlla la boo fekkoon nit da laa lebal bor ne la weer nga moo koy fay bu nga far yàlla fukki fan juróom nga am loo ko fayee dem fay ko dañ naan la dañ naan la moo gën mën nga koo jiital fay ko ndax yow weer ngeen waxante waaye fukki fan juróom am nga loo ko fayee demal nga fay ko loolu jaamu yàlla la ak yeneen ak yeneen waaw kon ñu jël bindi wii rek tayam foofu ndax mi ngi bëgg a bëri mu ne wamaale nga xam ni yan tasib day askanoon ila haza jëm ci lii wa haza ak lii fa fii nekk na ci moom xulfun ak woote goo xam ni xulfun ak woote doon nasin ci lu dul nas boo xam ne xaj gilib xëcceef na ko wama ila haza wa haza yan lii nag fii am na iskaal ndax wama ila haza wa haza da ngay def day isaara ba noppi muy isaara lu jege ak lu sori ñaar yëpp mu ni haza wa xam nga loolu dana am iskaal waaye way wi xëy na way wee tax waaye boo isaara ñaari bu fekkee ñaari mbir dañoo tegaloo am bu jiitu am bu ca boo nee ma haza ko xam waaye ba gën a sori na ko isaara loo xam ni dana tegtale moo jiitu waaye ala kulli xaal des na ko comprendre mu ne xam ne yéen tasib day askano ila haza jëm ci lii wa ak ji jëm ci lee yéen mu ni fa fi foofu foofu yi nekk na ci moom xulfun wuute goo xam ni doon na seen ci lu dul nasa boo xam ne xat julib xëcceef na ko loolu mooy lan mu ne jaamu yàlla ga nga xam ne mooy gi mu doon wax léegi rek fiihi shaibatu taabudi wa shaibatu lmafuliya ka zakat mu ne yaxtalifu fi taqdimihi hal yajuusi wa yusi am la mu ne jaamu yàlla goo xam ne daa am genn xaaj ci taabudi am xaaj ci mafuliya maanaam jaamu yàlla goo xam ne xam nañ am na loo ci xam ne li tax yàlla digale ko mën nga ko comprendre am loo xam ne ajuwul ci xel mooy lu mel ne mooy lu mel ne azaka mu ne loolu wuute nañ ci ni mënees na koo jiital am na ñu ne mënees na koo jiital te na doy dagan na doy am na ñoo xam ni déedéet am na ñoo xam dañuy déedéet mënoo koo jiital waaye daal euh, ndax azaka wax naa la ko léegi liñ ci mën a comprendre mooy buñ ne yow mi am jëlal jox ki ñàkk day day tekki ne suñ suñ borom daa bëgg a fattal ñàkk yi nga xam dañoo ñàkk ak yu mel noonu kon ñaari kon kon wuute gi moo tax mu ni fa fii nekk na ci moom ak wuute am na ci doon na xar jullit te amul benn nas nag boo xam ne mooy mooy dikk di dëgëral wala lee waaye am na nas sax nag sil xaqiqa ndax wax nañ ne euh, Abbas Seydina Abbas suñu borom jël na azaka yi atam kon loolu am na nas waaye ci mazhab maali nag azaka moom des na ko jiital waaye nag du doon diggante bu bëri comme lu mel ne Abu Hanifa nga xamante ne ko jiital at wala yu mel noonu kon waaye xam nga am na jaamu yàlla yoo xam ne moom lu mel ne jàpp ci misaal xam nga jàpp am na ci loo xam ni taabud yi la am na loo xam ni euh, mafuul yi la waaye teewul njàpp maanaam ijmaa da cee am ni mënees na koo jiital njàpp jaamu yàlla waaye mënees na koo jiital te waxtu julli jotagul loolu boo xam ne jullit yëpp dëppoo nañ ci kon mën nañoo yem foofu yaakaar naa ba dikkaat ndax ba see jeneen wax la waxaala inna al amru laa yuwajjahu ilaa la tatabusin muntabihu mën nañoo yem fii wa maa ilaa hada wa hada yantasi fa fihi xulfun doona nasin qad julib wa aleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh allamana allahu iyakum ilma tuqa wal amal salih